ni ko yàlla bindee moom ci boppam jikko yi nga xam ne moom la ko yàlla jikkoole loolu rek doyoon na waaw pour ñu gëm ko de ñoo ko tuddal seen bopp lamin ñoo waxal seen bopp ne mas da nar ba nga xamee ne yónni nañ ko sallallahu alayhi Wasallam, te muy bind jëm ci buur yi ba leetaram di dem ci xiraq la ki nga xam ne mooy fa la ci quraysin abu sufyaan nga ca ba rek yonent bi ñëwee ca Kaysar mu ne xoo leen ma ci dëkk bi képp ku fi dëkk Makka ñu xoo waa Makka yépp ñu daje ci këru nguur ga mu ne leen ku ko ci gën a jege Abi Sufyaan ne man fekk na booba ku bokk ci Bani Abdu Manaaf moom rek a ca moom rek a fa teew de mu ne leen dama leen di laaj waa waajile ne mbooloo bi déglu leen ko kat moom laay laaj moom mi ko gën a jege su waxee dëgg na leen dëgg la su fenee na leen ko fen na yaaram nag ñu wax ko fenkat rek moom la gën a bañ ci àddina Abu su taxutu nag loolu danaa fen yu bari waaye daal ragal naa ñu nettali ay fen jële ko ci man rek moo tax ma ma takk sama dënn rek wax dëgg mu ne ko dama lay laaj waa ji nga xam ne moo feeñ ci yéen di woote ab yonant la moom laa leen di bëgg a laaj ndax xam na askan wu mbokk ci yéen ah mu ne waaw moom koy borom askan la mu ne waaw ndax ay maamam dañ doon buur mu ne mukk mas daa am maam ju da buur mu ne ndax kenn mës naa wax loolu ci yéen mu ne kenn mësu koo wax ci ñun ndax daana fen ñu ne mës da fen mësuñ koo xamal wet na fen de mu ne waaw ndax ñun ñaa ngi koy topp mu ne waaw néew ji doole yee koy toppam am ñu rëy ñu rëy lu ñi mu ne néew di jo néew di joole yi ñoo koy topp mu ne waaw ndax dangeen ngeen moom ñu ne waaw na seen xare mel mu ne xaya xay loola de bu tayee ñu gañe ko boole légee mu gañe ñu waaye kenn mën da am la gannaaw kenn mën da damaraayam de mu ne waaw ndax dana xuruj ah mu ne mosuñoo xuruj ci la wéyoon de waaye ci diggante bii nag ñi nga waxante waxante boo xam ne xamuñ dana xuru jëm déet mu ne rek laa a borxole si mbaat su ma ko xam su ma ko coppatee tuuti mu ne ah ngi toll ci xóolwante gu xees xam ne xamuñ nam cey def de ne waaw lu muy wax lu mu leen di digal daf ñoo digal ne nañ bàyyi suñu buñ jaamooti doj yiñ doon suñ bàyyi doon jaamoo nañ jaamu yàlla rek te nañuy wax dëgg te nañu fegu bàyyi njaaloo te nañuy matal wëlëre de te nañuy jokk ak bokk mu ne waaw ñi ko topp danañ ko topp ba mu yàgg ñu murtat ngir sikk dara ci diine je ñu ne ko musu musula am moom kay koo xas sopp kay bët bu set nga attan ko jote sa bopp ak sa ndey ak sa baay mu ne ko laaj naa la ndax waa ji borom askan la nga ne waaw yàlla ku muy yónni fay fekk nga am askan laaj naa la ndax ay baayam ay buur daf jene woon nga ne déedéet su fekkoon doomi buur la doomi buur a gën a bëgg nguur ma ne dafay hut ak pal rek nga ne doonut ak pal ku doon ak pal xelam dina ko ci pal laaj naa la ndax ñu doxadi ñee koy topp am ñu rëy ñi nga ne ñu doxadi ñee koy topp looloy xaata yàlla yonantu bu bu fi yàlla mas a yónni way doxadi nit ñi ñoo koy topp way ñi dañuy bañ de ba xalaku laaj naa la lu muy digle nga topp yàlla ak wax dëgg ak fegu laaj naa la ndax dana xuruj nga du xuruj laaj naa la ndax ñu koy topp danañ murtat ngir sikk diine nga ne déedéet su fekkee li nga may wax dëgg la waxuma makka ga ngeen di xëccoog moom de waaye fii ma teg sama tànk yi dana ko moom de man day su ma xóoroon ne mën naa jot ci moom maay raxas tànkam ya te maay maay fopp dàllam ya de xamoon naa nag ne ab yonent dina ñëw waaye ne mu ne foofa coow jib cee néeg ba ñëw bañ génnee abi sufyaan ne bismillah ibnu abi kabsata mile ñuy weranteeg moom ca makka róom di ko ragal fii ci róom ah man kii jaaxal na ma nag ne foofa la sama bakkan tàmbalee di mokk benn ma yàlla jibal ma ma dugg ci diinal islam de